asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki safo GP bi Sénégal tey ñu ngi fii si Diogo benn dëkk bu ñuy wax jogo Diogo nag tey suñu tànk yi li ko fi waral mooy ku nekk dégg na li nga xamante ni moo xewoon fële sa Tiwaawan benn dëkk village bu nekk foofu si Tiwaawan ñu koy wax Kër Macoumba Diop muy ndaw soosu nga xamante ni dañ koo jëf jëf ju ñaaw jooju maanaam dañ koo faat ba noppi taal ko xamuñu nekk dañ koo taal su ñu muy dundee wala dañ koo faat ba noppi taal ko waaye daal lu ñu mën a jàpp daal mooy daal taal nañ ko te it fekk nañ ñu taal ko ba nga xamante ni cër yëpp si moom mën na ni les des bariwul moo tax sax bi nga xamante ni police scientifique mu ñëwee ñu xam ne lii kenn mënu koo déplacé moo tax it fi nga xamante ni fa lañ ko defee jëf ju ñaaw jooju foofu lañ ko mujjee denc mbokk yi nag tey ñu ñëw fii si dëkk bi nga xamante ni ndaw soos ñu def jëf ñaaw ja fii la cosaanoo fii la dëkk muy jogo ñëw fekk fi fameem fekk fi ay mbokkam yëpp ndaxte tey jii lañ ko doon ñaanal waaye nag ñu ñu fekkee famille bi waa famille bi ñëpp dañoo sëngeem dañoo jaaxle waaye tamit ñu ngi toog toogaayu ñàkk nañu koo xamante ni ku woon la su ñoom ñàkk nañu koo xamante ni bu ñu sañoon mu des fii su ñoom lool waaye nag tey jii nii bu fi GPTV Sénégal ñu ngi dafa bëgg a dugg si biir xool ki nga xamante ni mooy yaayu ndaw si ak papay ndaw si ak euh, ñi nga xamante ni daal ñoo dëkkandoog ñi nga xamante ni ñoo dëkkandoog ñoo dëkk ak ñi nga xam ki nga xamante ni mooy ndaw si ndaw si nga xamante ni mooy Awa Sow mbokk yi da ngeen ñuy topp rek ñu dugg si biir waxtaan ak famille bi waaye waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo gën a jege aji dem bi nga xamante ni mooy Awa Sow waaye nag bu ngeen bëggee information bu baax bu leer naññi euh, jàpp leen GPTV Sénégal ndax mooy bu baax bi.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 mbokki safoo GP TV Sénégal euh, ki ñu toogal nii mooy euh, borom kër ki nga xamante ni mooy aji dem di awa di awa saw mbokk yi moom lañuy ñuy bàyyee nuyoo xam naa ne nag waxam du mën a neex na te ku ko xool xam ni xool bi tooy na ndax li mu ñàkk ku ko ñàkk rek gën a tooy seen bi ñu bàyyi la nga nuyoo waxtu bi nan la. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw maa ngi nuyu euh, mbooloo yëpp maa ngi leen di nuyu teew seen liggéey. waaw ndax sama wàkk mun a munul ba munul bëri wax yàlla macha allah ndaw si macha allah ku baax la mu sama loxo ba léegi macha allah euh, sama ndigaare lay demee fu may dem damay taggu boo ker bu may dem wax dëgg yàlla macha allah damay taggu lim maa ngi dem Thiawane Réunion ah ker ker ci um koor gi alxames ah boobu ba léegi nag dëgguma moom dara dara fu ñuy wër nañ ko maag sama dëkkandoo. seen paas ak seen xaalis ak seen oto yépp di ko méttilu waaw mu xaw ma jaaxaa lool boo kera euh, ci ci weer koor bi 17 jours lañ ci moom dégg Noël mu mu ñu kaw jaaxaa lool ah. doon sa soxna nga dégg si information bu mel noonu ñun la kat rey nañ ko ba taal ko wala ñun la taal nañ ko sa àll boo xamante ni mu ngi nekk ci mu sori lool mm-hmm. bi nga ko yëgee ak nga ko waxee tamit. waaw dama naqari lool dama naqari lool lool lool tamit dee bi fekkoon ci biir biir néegam la ko daloon ndax koo gis moom dee la koy xaar ni ñu ko reyee moo ma naqari yóbbu nit bu ci digg àll ah, ci biir mango yi lëndëm nga koj ko ci rey ko bu pare taal ko bu mu nekk dóom loolu mu ma ci gën a naqari nakkal ma ci lool lool lool lool lool lool wallaahi nakkal ma ci lool. moo tey borom këram di moom di fanaan ak moom di yeewoon nag moom tey amul woon benn jafe-jafe fi nga xamante ni mooy dëkk wala benn problème boo xamante ni bi affaire bi amee sa xel dem na si. kii kaay xanaa dégg lu ma wax kii kaay moom benn jafe-jafe musul ko am jafe-jafe boobu kaay moom xanaa bu mu amee lu mu nakkar ci moom téyeet bi mu téye ni mu dee ci biir àll bi foofu rek. naqar commencé am am ci moom si bu mu ñëw ci man ba léegi benn kër naqar musuma ko def musuñu meroo fii ma sëy itam musu si moro kenn musu meree góor musu fi meree moromam jigéen waaw waaw kon daal ku baax la ku nangu sama ndigal la maa ngi ko ñaanal yàlla nan ko yàlla yërëm kar ko aljanna yaa barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kenn ngeen mu dem mu dem a bàyyi fi ñetti doom. Mhm. Mhm. ñetti doom yooyu tey boo leen ñuy xool sa xel di dem si seen yaay. naka la lay def. waaw kan xanaa xam nga métti ma lool boo léegi sag dee bi métti na ma bu ma bu ma leen xoolee rek sam xol bi daal di jeex waaw sam xol daal di jeex jeex trop daa def seen yaay dafa nangoon mën toppatootoo waaw moom bu baax la daal. waaw xëy na dégg nañu information tamit ni bi muy bi loolu di am tamit dafa yóbbaale woon ëmb. waaw waaw waaw dëgg yàlla moom mm, affaire bi xaw na ma métti lool sax métti na ma lool métti na lu ñu ma demee moom métti na ma lool sax lool lool lool lool. Mm, waaw. tey euh, looy xaas yoon pour mu def liggéeyam ak it lan ngay wax yoon mu gën a def liggéeyam ndax ba ñu jàpp ki nga xamante ni moo def jëftu ñaaw ji ne gis nañu fi mu amee sori na lool si Tivaouane si village bi tey àll bi sori na lool bu dem nga. waaw kay man kay moom wax dëgg yàlla yoon nañ ci dox liggéeyam lool ndax bi lii buñ ci doxul ah, ah daanaka ni mu ko ni mu gisee ni ñu ko reyee ñaaw na lool te buñ ko bayee noonu ma sedd ah duñ ko arrêté. waaw di nit nag nit du jur jur sax bàkkan la am melantaan sax bàkkan la am suñu ma nit nag xam day day dem ay soxlam day jël ay soxlam day njëriñ ay nit njëriñwaat ay nit kon nag nit foor la kenn boylu saggi nit nit du bay ma waaw waaw loolu moom euh, nañ ci nañ ci dox dox ci dox dox nañ ci dox ak dëgg yàlla lii moom ah kaw na ñaaw lool métti na métti métti ba ci kanam yàlla xaw na ñaaw lool waaw xaw na ñaaw lool métti na lool lool lool. man na waaw mën na sa wax mu tu bëri ndax li ma wax nii commencé wax rek sama xol commencé tooy wax tax sama wax bi sax du mën a kii woo maa leen ñaanal jàmm jërë ngeen jëf jërë ngeen waaw di la wax yàlla na la yàlla may xol amin amin amin jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yéen leen ñaanal yàlla jërë ngeen jëf yal yàlla fay leen seen taxawee rafet na li leen leen def yëpp lu am solo la wax dëgg yàlla jërë ngeen jëf baax nga ci réew mi kaaraange ngi ci réew mi dëgg yàlla jërë ngeen jëf ni ngeen mel ku kuy mel ci yéen daanaka yëpp du fa am soob yàlla jërë jëf. mbokk yi ba tey ki ñu toogal ni mooy papa Awa Sow mi nga xamante ni mooy aji dem gi papa ñu bàyyi la nga nuyoo. man na may papa Awa Seck Ba dëkk Cukuñ Awa man maa juddule maa euh, yore. boo fu mu toll boobu moo tax dugg si néegu sëy ma jokke ko ma jog ko euh, móodi ah tey nax laaj am lu ma nakkari bi ma demee ba seet ni ñuy def awa mu métti ma lool kenn ku ne xam na ne dee moom kenn amul kulli xaal yi kenn ku ne di nga cee jaar moom rek la ñuy kaar fii waaye dee nii awa ni mu dee moo moo moo métti sama xol moo métti addina bi yëpp sax addina bi yëpp du ma ne sax Sénégal addina bi yëpp ndax ku ko seet nga xam ne ak ki ko mën a def itam damaa defe ne kanaa amul ndey wala amul cam euh, euh, jigéen wala amul càmmiñ képp koo xam ne na nga euh, julli nga même boo jullitiwul sax am war nga am ko la yërmande jël doomu aadama na ne yow nga def ko wat jëfi am nga def ko jëfin boo xam ne bu rafetul boo xam ne ne addina bi yëpp ñu ngi koy nakkarlu nga dir si yëkkate ñàkk euh, euh, taal ko nakkar ak ak mitit mënul weesu foofu nun nag mënuñu ci dara yàlla moo ko teg ci sunu kow nangul nañu ko nangul nañu ko waaye kenn ku ne xam na ne ku ko nangu itam nangu nga lu métti nangu nga lu diis nangu nga lu rëy lii de awa bi mu mënee ak fiñ toll nii kenn mosul ñëw mu ne awa def lii wala awa wax ma ni wala kenn mosuma laakaale awa nee ma ni lii wala awa def na ma lii lu dul lu baax boo fi mu toll boobu keroog bi mu tàggoo fii itam jëkkëram nee na ko li tax nit ñi wàcc ko ne dama koy demaay toggal sama jëkkër ndax su ma demee Tiwaawan kaw ma ban heure laa ñibbis xol boobu di xam na ne jaboot la de bu eh, demee fi wàcc fi jëkkëram itam lekkul naanul rafetul kon loolu la la kéyaale fii boo loolee di ko fekk fekk ko ci. kon booba léegi papa mu mel ni yàgg na eh, bu kaat dem ngeen di yëg ni awa eh, dafa taal ko te ko def ju ñaaw jooju awa panda mu demee yëpp yéen a ngi doon dox ay jéego ngi bëgg koo gis dafa mel ni war ngeen ba sonn mënoon fu ne dem nañu ko sëriñ fu ne euh, nee nañu lii la lee la lee mënuñu ci am moom ci lenn lenn lenn wër nañu ba sonn dem nañ seet nañ ci ay sëriñ ñaanul nañ def nañu lu ne waaye lii rek lañ ci am awa ñëw seet kii ki mu tëdd fii defe naa ne awa lam euh, fa la ko fekk jaaru bi fan la ñu ko fekk appareil bi foofu la ko fekk ak euh, um, um, col bi mu defoon ci baatam moom la ko reyee sax lii lañ ci loolu moo tax li ngeen gis si moom moo tax ngeen xam ni awa seen doom la moom moo nekk moom wallaahi aw bu kenn ku loolu kay kenn weranti ko awa kam kenn ku ne ku nga gis xam ne ku nu gis sax xam na ne ah, do awa sunu doom waaw loolu moom ah, mën na nekk waaye nag awa moom xam naa ku mu joteel itam ku ko def leneen itam moom xolam bu rafet moom yéene wul kenn lu bon moom ku mu gis ce boppam la ni mu ni mu def li mu yéene boppam loolu la lay eh, yéene li muy defal boppam loolu la lay defal loolu moom xam nañ ko ci moom. dafa mel ni ki def jëf ju ñaaw ji ku nekk xam na ni démb bu dee dem nga fa nga xamante ni fa lañ ko defee sori na lool te àlle na trop bi nga demee ba foofu noonu gis tomb awa bi mu leneen sa doom moo tëdd fii euh, ndax boo ko yëgee sant waaw loolu um, loolu moom soriwul ndax xam naa kii bi ñu ko yóbbu ba ca biir euh, gott boobu gisul kenn gisul yaayam gisul nijaayam gisul baayam gisul càmmiñam li ma ci li ma jooyloo nag moo xalaat li muy xalaat kan moo may wëllu fii te amul kenn ku ko wëllu te awa bi muy bi fii itam omboon na de waaw dafa omboon de jël awa mi jël awa mi bakkanam ba ko dafa ëmboon waaw dafa ëmboon de ñaata ah, mu war na mot ñett moom waa war na weesu sax ñett waaye man ci li ma ci jàpp moom ñetti weer daal am na ko waaw ku ko jël itam ñaari bakkan nga jël waaw. papa loolu métti na de. ah métti ah nan la ngay def mënoo tepp mënoo jooy mënoo eh, eh, sarkole mënoo def lu ne ah gom yàlla rek yonante bi rek nga nga nga nga xam ne ne li di jël awa dina la jël dina jël keneen dina jël keneen. a tey jii nii %e démb dem ngeen fa ba ñaanal Awa ndaxte euh, fi mu nekk kenn mënu koo déplacé :fra ko fenn tey tamit %e si loolu noonu lan nga siy wax waaw loolu loolu moom kenn ku ne teg na ci bëtam te loolu moom gis-gis ñëpp la koo xam ne ne amoo ci lenn loo mën a yëkkati si moom du tànk du loxo du du bopp dara lépp ñor komm ah foofu rek loolu moom ñëpp ko tegandoo boot loolu ñëpp ko tegandoo boot waaye nag ah yàlla moom mu ngi fi ku rey nit am dooree yàlla lu yàgg yàgg ki ko def itam yàgg yàgg day dugg ci suuf rek ba ëllëg itam day toog a awa kanam seen borom. papa tey lan ngay xaas yoon mu def liggéeyam ba mu gis ki nga xamante ni ba ñu wala jàpp ki nga xamante ni moo def jëf ju ñaaw ji loolu. waaw loolu man damay ñaanal toujours dama koy wax sax man euh, brigade yi ak tribunal yi yëpp dama cee dem man toujours damay ñaanal euh, gouvernement bi jaa ñaanal autorité ñaanal euh, takk der yi itam ñu continuer ci seen liggéey ci seen njàmbaar ndax lii bu dul woon ñoom sax daañu la fekk ci sa kër sax fetel la wala jam la paaka nga dee te loolu yëpp nag ñoom ñu ngi ci def seen seen kentalaay kattan li ma wax ne itam euh, commandant bi démb itam def leen seen liggéey ngeen def lu ngeen mën ngeen def ko li ngeen mënul ngeen xam ne ne mënu ko ñu tekk li ci des ñu teg ko ci loxo yàlla. jërëjëf Pape. waaw lan ngay ah, li may tàggatoo rek muñ bu fekkonte ne fukki euh, metit la ah daana tey tey démb ba tey doomu aadama ñi fi teg ñëw. jigéen ak góor ak ñëpp ñëpp kenn ku ne di jooy daanak ñàkk nañu awa waaye nag daanak ci sant yàlla lañ ko teg ndax bu fekkee ne yow da nga am nakar jaambur yi gën a gën a sore ñuy jooy kenn ku ne rangoñam di wodd kenn ku ne muy muy muy jooy muy métit lu ah doo doo def dara lu dul sant yàlla ak yonent bi nga xam ne lii yàlla moo ko teg ci sa bopp di mënoo ci dara yàlla moom mu ngi si tey mu ngi si ëllëg di du jeex boo faw waaw ñu ngi leen siyaar yéen ñëpp di leen ndokkeel di leen masawu coono gi ak jóge Tiwaawoon ak ba ñëw fii ndax ngir ñun daal ah, ndax xam naa ne loo am information yi loo ko jëli-jëli maanaam liñ naan eh, soow ma soo ko daje ci àll ba mën nga am doo am soow ma nga bëgg waaye soo demee gerte ko mën nga am soow original ba maanaam loolu ngeen di def waaw ñu ngi leen siyaar yéen ñëpp nag di am kontaan yéen bu baax a baax nag waaw di masaw yéen itam coono yi ndax mas coono bi moom eh, ñun ñëpp la dal ma ne àddina ñëpp la dal Sénégal yëpp la dal parce que eh, jàgg jàpp nit eh, rey ko taal ko loolu métti na ci kanam yàlla métti na trop ndax awa nit ku baax la awa ku baax la. <coughs> mbir mi. nga ko yëgee. non mbir mi xanaa woo ma téléphone rek ñu ne ma awa daal xam naa ne ki nga doon wër daal awal dee na lii lañ ci am ma ne ko ah wallaahi lii lañ ci am euh, ñu am naqar lool nag xam naa dipp ba mu ñëwee kër gi keroog la ñu mos am naqar suur ba ñu déggee awa moom la rey ñu taal ko boobu lañ am naqar ci aw waaye mosul am ci aw naqar amul benn problème ci kër gi. xam naa ne jëkkëram maak moom ñoo bokk ndey ak baay jëkkëram moo topp ci ma sama rakk la xam naa ne bi mu ñëwee ci kër gi léegi fu muy dem dina tàggu borom këram digal borom këram lay wéyee su tàggoo borom këram ba pare dina ñëw tàgguwaat man mi xamante ji maay magu jëkkëram dégg nga kon awa ku am kilifteef la ku am yar la ku yaatu la ku liggéey la dóor waar rek la xam. waaw euh, awa ñaata fan ngeen toog gisoo leen awa ak awa bu ñu jógee fii kañ la fi jógee ak ban heure la fi jógee. ak fan la leen tàggoon. awa awa bi mu fiy jógee réunion lañ tàggoon mu ngi dem Tiwaawoon euh, réunion parce que comme que euh, dañ leen woon comme taabal yooyu dañ jaaykat jën lañu ñu woo leen quoi dañu bëgg defaraat tali bi comme loolu lañ leen woon daal ñu dem Tiwaawoon xam naa suur bu muy jógee fii suur bu ñu umee koor la. suur boobu la fi jóge xam naa tàggunu borom këram bi mu nekk demal mu door dem jaarat na man tam man tàggu moo mu dem kon aw bu muy jógee fi tàggunu borom këram tàggunu tàggu na moom waaw fii waaw awa si ndigal la wéyee fii euh, bi ñuy soog a um ko lafi jóge ba léegi mm. mu mel ni euh, loolu yàgg na ngeen di soog a trouvé ni awa dañ ko war a bataal ko hmm? mu mel ni ba loolu yàgg na lool ndaxte bi ñu soog a ëmb um ko ba ba ba kaati démb mën naa ne am na awa awa ñun ñu am ci moom information awa dee na boobu weeri koor bi am na fukki fan ak juróom-ñaar aw suur bu ñu umee koor la fi jóge di ba mu fiy jógee mu dafa um koor jënd ndogam parawaare ko moo jënd ay jënam ñëw teg togg mu ne léegi nañ ko waasal jëni muy ñëw togg ndog après mu jóg dem dem ba heure war ndugu jot awa ñëwul ñu mujj koo taalal ndugu léegi ba ñu ndogoo ba pare gisuñu awa dégguñu awa nii affaire ba demee boobu léegi nag ñu ngi wóor ñu ngi wóor ba keroog ba weer wi amee fukk fan juróom-ñaar ñu door am information awa dee projet bi ngeen déggee ni Awa Deena taal nañ ko si dëkk bee di Tiwaawan benn quartier bu ñu fay wax euh, Kër Macoumba Diop loolu naka la leen def xaw leen a jaaxal ndaxte fi ñu taal Awa boo fa demee xam ni sori na lool est-ce que Awa mën na yóbbu foofu boppam. noo aw mënu fi yóbbu boppam Awa yàllaa jàpp waaye su yàlla jàppaloo Awa du feeñ suñu borom moo moo ci niit moo tax aw feeñ mi aw kon feeñ waaw ndax euh, Awa fi ñu ko yóbbu. aw nit ku ragal la moom mu ñemewul sax ba mu nekkee ci kër gi nit ku nit ku ñeme xanaa lii nattu bu ñëw ci moom mais nit ku ragal la mais nattu su ñëwee rek day dal ci ku ne mais awa suur ba ñu ma mën ko déggee a gaañu na man sama adduna yëkk dafa ba yàqu parce que dee xam nañ ñëpp ñu dañu dee xam nañu kenn ku ne soo dundee dee nga lay xaar gis nañ fi nit yeew fekk dee na ci lalam gis nañ fi nit feebar dee xam nañ loolu mais nit ku jóg muy dóor waar di liggéey ah nga jàpp ak gàttandu ko yóbbu ko rey ko taal ko di dóor waar wacc njabootam ah wacc ay doomam yu ndaw loolu métti na sëñ bi loolu métti na yéeme na mais ñun suñu borom lañ koy diis. te tamit awa euh, jàppoon ni am na lenn benn problème si dëkk bi ak kenn wala comme joteel dara loo xamante ni tey jii. awa mosu fi kenn jotee problème. kër gi mu nekk ñun mosu fi àtt nit kenn mosu ko àtt ki jëkkër waxuma ko waa kër gi. kër gi fii nii gi ma sëy nii nii man li ma la wax nii fee ci bor yaa ngi dégg fi kër gi problème fii waxuma la dëkk ndoom nag te xam naa ne dëkk ba mu demee ba léegi ay dëkk ndoom ngi jaaxle ñun ñëpp ñoo bokkoon coono bi ñoo bokkoon wóor bi ñoo bokkoon coono gi bokk wóor gi am na ñoo xam ne dañuy doon jël seen ot di loué di sol gas gasoil duñ leen fay dara fu ne dañ nañ ko ci kon aw nit ku baax la amul benn problème kër gi du suñu rakka yi du suñu euh, yaay du suñu papa yi aw ñëpp la amal cër ñëpp la amal teraanga ñëpp la amal yar. waaw doom la bàyyi. aw bay na ñetti doom. ñetti doom ñetti doom bay na benn góor ak ñaari jigéen. yu mag la wala dëgëragul. waaw góor bi xaw na dëgër tuuti mais jigéen yi moom yu ndaw lañu. tey jii nii lan ngeen di xaar ak lan ngay wax yoon pour mu def liggéeyam bu baax a baax ñu mën a xam ki nga xamante ni moo jëf jëf ju ñaaw bi. waaw ñun daal li ñuy soññ koy di suñu borom di dis ko euh, euh, réew mi nañ ci jàpp surtout ma gouvernement parce que ni mu dee ñaaw na métti na aw ni mu dee ñaaw na métti na kii mooy doomu aw yàlla indi na ko mu taxaw sama kii doomu aw la. doomu aw la bul laal sama soxna lañ ko tudd waaw yaa ngi bay bay bay li ngay def bay li ngay def yaa ngi dégg kon liñ ci ñaan suñu boroom rek mooy euh, nañ ci jàpp ngir yàlla yàlla jàppale ñoom ñu xamante ñoo koy nit ba ñu mën gis aw loolu rek lañ ci ñoom wax euh, di ñaan suñu borom itam li nekk ci réew mi na fi jóge yañ yàlla dimbal bi mu jóge fii parce que dee yi bari na euh, surtout maanaam dee awa gi dee ak moom ni mu demee dafa métti ñun parce que rey nit taal ko loolu leneen lay nuru sëñ bi lay nuru la daal dañu sàkku ñëpp di ci sàkku nguur gi ñu nga xamante ne wàllu wàllu kaaraange nañu defaraat seeni kaaraange defar réew mi ndax réew mi ñi metti na waaw ah, ku sa doom tàggu sa xel du dal bala mu ñëwaat ku sa soxna tàggu sa xel du dal bala mu ñëwaat surtout ma aw ni mu demee nii surtout ma suñu tund yi surtout ma département Tivaouane bi mu dem ndax suñu tund yi ñun xamuñu ko woon ñu lii dañ ko doon dégg yenn saay rek waaye ñun xamuñu ko woon kon lii nañ ci jàpp gouvernement jàppa ci euh, ba ba liy jóge fi daal lii en tant que ñun ay julli lañ nañ jàpp lii lii lii lii mu jóge fii mais ñun nag instant yi ñu gum yàlla wàkkeelu ci suñu borom toog di xaar yàlla. démb demoon ngeen si tomb ba euh, donc euh, moom fi ko taal mën ñu ko faa jëlee moo tax ñu laa koy suul nga xamante ni fa la jëf fa lañ ko defee jëf ju ñaaw ji tey dem ngeen fa euh, démb ñaanal ko ndaxte loolu rek moo seen wareem loolu tamit ban ban ban ban yëg-yëg nga am bi nga demee fi nga xamante ni mooy si barab waaw man mujj maa dem ndax mbooloo moo bari bari koo xamante ni dem mujj maa dem sama rakk ji borom jëkkër ji moo demoon ak yeneen suñu waa dëkkandoo yi man ma mujj maa dem waaye wax dëgg yàlla ñëw dem demee moom nee seen xool sedd na ndax euh, euh, gaa yi taxaw nañ leen taxaw bu baax wax dëgg yàlla euh, loolu moo tax ñoom itam seen xol seddaan man moom heureusement demuma wax dëgg yàlla kon foofu moom amul foo gis-gis bu mën a wax waaw di xam naa ne aussi sama rakk ji ñëw ba léegi xam nga jigéen ju baax moom soo ko ñàkkee sa xol day fees doo mën a wax loolu moo ko jàpp moom ay téléphone sax yenn saa di ko nangoo dañ koy woo man maa koy wuyule waaw noonu daal la demee seen bi waaw incha allah kontaan nañ ci yéen nag bu baax a baax a baax di di si bu baax a Eh, macha allah wax dëgg yàlla. Eh, ah, awa soow dañoo kay suba teel mu dem marché bi mu demee marché ñu toog tuuti ñu gisaat ko ñu ne ko ah, awa yow lu la indi mu ne man damay dee ci réew mi mu dem sangu ba pare sol yëreem jël posetam lak saayu mi sóoram mu ne ni maa ngi def réunion booba sax nun xamuñu woon Tiwaawoon la jëm ci mujjantal bi lañ xam ne Tiwaawoon la jëm waaye xamuñu ko woon ñu toog toog ba ñu ne suñu coccorgam bi naka toog gar reer ñankatan togg pare maa ne déggeen comme que gisu awa ñëwagul ti kamoo kañ lay ñëw toggal soos bi rek benn yoon awa toog kii déggeen togg ba pare ñu toog ba ñu naan ndox ba pare léegi gisuñu awa léegi man damay jaay mburu ma jekkal mburu ma dem marché am ku ma ne ñi mu ana awa baax ñëw na ma awa de bu ñëwul sama gennaaw ñëwagul mu ne ma awa baax de tey dañ ko yëndoo wër Tiwaawoon gisuñu ko ma ne ah awa. awa bi muy jógee ñi mu àndaloon. Hmm? bi muy jógee fii waaw am na ñi mu àndaloon ñoo moo ma ne awa baax tey fu ne wër nañ ko aw fu ne wër nañ ko awa gisuñu ko waaye dañoo foogoon awa daa ñibbis dañoo gisul te moom mu ñibbisi fii loolu lañ doon def ñu ko awa ñibbis guut ma ah, awa moom awa bay fii kii awa nekk foofu. aw kon am na am na gàllankoor bu rëy ndax nun baax ak yaru ak respectuñu respet ayam lañu ko xamee awa bu kese ay amul soxla feneen amul soxla ci leneen bu de nun boo de toggee ñaari moom toggam nduggoom benn la fii ci kër gi yàlla xam na ko dugg boobu mu doon dugg ne moo tax moo ay tey moo tax ñooñu raw ko xam naa waaye awa moom am nañu naqar torop fa naqar trop dem mu mat fukki fan ak juróom yoo xamante ni gisoo leen awa bi ngeen di déggaat awa mooy awa dañ ko def def du ñaaw yoo xamante ni xëy na euh, ñëpp ngi koy ñaawlu fii si senegal tey tamit bi nga yëgee jëf ju ñaaw jooju ak ni koy yëgee ak ni mu amee. naqar rek am naqar sa am naqar sama xol lool ndax man aw moo doon sama lépp moo doon sama lépp moo doon sama lépp ci kër gi daal waaw nag man jëkkëram laa fii laa ne waaye man moom. kaw ma ci moom lu dul mbaax ak yaru ak bëggañu bëggañu torop bëgg ci mbokki jëkkëram amul fii ku mu noonoo ci kër gi nekk amul man gisuma ko mosuma ko gis aw mu ngi fii wala mu ngi gisuma ko liggéeyam daal respect kee dina dem mars liggéey liggéeyam ba mu jeex toog fii fii lañu doon toog di waxtaan moo tax affaire bi kaw lañu jóge nakari nañu torop waaye nag kay na foofu la ko yàlla yem la woon am na ci nakaru kol torop tey ah, bu ñu doon la laaj tamit ah, comme que Awa dem na si tamit boo xamante ni doy na waar Awa eh, comme que yaay bàjjenu jëkkëram Awa musta am ak benn problème fi nga xamante ni eh, si dëkk bi benn nit koo xamante ni am nañu problème wala loo xamante ni gina eh, ko def si dëkk bi mu am ñenn ñoo xamante ni neexu leen. aw ba mu fi wàccee ba léegi tey lañu am ci moom lu ñu la këri bésu tey bii bésu démb bi bañ ko déggee lañu am ci moom lu ñu la këri ñu mu fi aw daaw nitu jàmm la moom nitu jàmm la nitu jàmm la woon amul benn problème amul benn problème ci kër gi du xale du mag du jigéen ñun moom ba mu fi wàccee ba léegi tey lañu am ci moom lu ñu nuyu ko wax dëgg yàlla nag këri nañu torop yaay looy xaasi looy wax yoon pour mu a def liggéeyam ba ñu jàpp ñi nga xamante ni ñoo def def ci ñaaw yoon li def liggéeyam yoon yoon moo fi ne la def liggéeyam man loolu rek laa leen di ñaan loolu rek ba magi awa la demu awa bi nga ko yëgee naka la la def ak noo yëgee demu awa bi. waaye rek naqar rek naqar rek laa am si moom na ma lool lool may magam dëgg yàlla. démb daal laa am si moom li ma naqare waaw. dafa dem ñu gis ni tamit uh, kullu nafsin saaxatin mawti bakkan bu mos dund di nga mos dee waaye awa uh, ni mu demee mu doon demin boo xamante ni uh, doy na waar moom nit ku loolu dafa metti loolu bi nga ko yëgee en tant koo xamante ni sa rakk la. doy na waar doy na waar doy na waar waaye sant yàlla yàlla moo ñu ko teg. loolu dañ nangu nañu dogal yàlla yàlla moo ñu ko teg waaw sant yàlla. tey mën nañu wax kan mooy awa ak awa nu mel lan la ñuy wax jikkoy awa. awa dafa baax awa ci baax laa xam amul benn caakaar waaw laa xam ci moom ba benn caakaar te yërëm na ma lool waaw démb daal laa am ci moom li ma naqari maa ngi jël sama doom fan jox waaw mi ngi nii sax ñibbisigul ba léegi. awa dem bàyyi fii ñetti doom. ngay magam. bu bàyyi fii ñaari doom ak sama doom ki ma ko jox waaw loolu la fi bàyyi wax dëgg yàlla aw ma ci moom sama aw ci moom benn naqar du dul na ma lool wax dëgg yàlla barki dem rek la jóge sama kër. jogoo ak ñëpp naqar ak tiis la ñu ah, ak démb. la ñu moom la ñu dëgg yàll naqar ak tiis dëgg yàlla ñëpp a ko bëgg ñëpp góor ak jigéen xale mag waaw dëgg yàlla maa ngi sant jëkkëram ak goroom yi ak wujju peccooram yi mu àndal fii waaw ak rakk borom kiram ak magam yi ngi leen di sant ñoom ñëpp.